بسم الإله إفن الدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن الدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله أكدار يا الله سفيك بقاء بهم لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك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 seen émission ëttu murit ci seen télévision Lamfal TV di am alxames du jot bu 20 heures tegalee eh, fanweeri minit ngeen di ci mën a ànd ak seen mbokkum taalibe fàllu gala Syll ñu feggoo ci wàllu eh, image bi ak eh, Serigne Fallou saw ñu àndandoo ak moom nag di leen nuyu nuyoob lislaam di jiital ci nuyoo boobu ki yàlla teg ci bopp yoonu murit di Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu ñaan sun borom mu gën ko fee yàggal gën a dolli ak wéram ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko te ñu ànd kook moom te am ci ngërëmul sëriñ bi di siyaare mboolem njabootu sëriñ Touba gépp di siyaare mboolem seexi sëriñ Touba yëpp di jaajëfal bu baax a baax eh, njabootuk eh, sëriñ Mañaaw Silla te tàmbalee ci bopp ba sëriñ Sidi Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne mooy jëwriñi kër Mañaaw gépp di siyaare sëriñ Mapate Silla ñu gën koo min ci sëñ boole mi nga xam ne mooy xalifa ba ak mboolem mbokk yi nga xam ne aju nañ ca di jaarale ziar boobu nag ci sëriñ Saliou Silla imam mi nga xam ne émission bi weesu moom lañ ci dalaloon ñu ngi jaajëfal bokk yëpp eh, tey ñaan sun borom yàlla nañ yàlla fayal mag ñi bokk yi tey ñu amaat mbégte ñëwaat ak yéen ci ëtt boo xam ne ma ne wax ne ëttu fondation la ci yoonu murit ëtt la boo xam ne ëttu formation la it ci biir yoon wi na ñu bari lu bari it fi fondation ne woo muy ëtt boo xam ne eh, borom ëtt bi moo jëkk wuutu Cheikhuna Ahmadul Xadim ci ñeen fukki atam di borom jom. di boroomu fit waaye doonoon boroom fulla doonoon boroomam xel doonoon it boroom xam-xam doonoon ko amuk dogu doonoon boroom njëriñ lu yaatu di as cheikh Mahamadul Moustapha ibnu cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di taawam bi nga xam ne moo ko jëkk a wutu. ñu nekk fii nag ci dëkkam bi mu jëkk am nga xam ne moom la jëkk a ci ndigalul sëriñ bi te moo di xosnul maab ñu gën koo miin ci tundoo di fekk fi sëtam bu baax bi nga xam ne moo fi wutu ay wajuram di sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Aliou Mbacke ñu ñaan sun borom mu gën ko fee yàggal lool gën a dolli ak wéram jàppale ko ci mbooleem luy yéeneem ci liggéeyal sëriñ bi mu man koo àggale doon mm, ko am jom moom itam doon ne ko ca maamam ju baax ja doon doonoon itam ko am fulla waaye doon it boroomu fit doon borom pësteef waaye doonoon it borom yitte yoo xamante ne bii ku ne xam ne ne yitte mooy yett bunt yu baree bare bari loolu dana feeñ ci biir waxtaan wi waaye dana feeñ ci biir image yi tey jii nag ñu ñëw ak yéen fas yéene ànd ak moom ci dëkk bi nga xam ne moo di ma Maab Eh, ay waajuram dem bàyyeeku ko fi ku mel ne sëriñ Aliou sëriñ Ahma ak ñi ñu bokkal ba tey jii mu ne ci ay loxoom mu jóg taxaw temm ci lépp loo xam ne dana tax dëkk bi mel ne ni sëriñ Tuubaa ñaanan waccal bihi daariyakal madina barakatan wa kahbatal na te loolu moo wallaabal ci bépp sancub sëriñ Tuubaa eh, sëriñ Cheikh Aliou nag ñu fekk fii ci Husnul Maab di ginnaaw bu ñu jàkkaarloo ak liggéey bu rëy bi nga xam ne liggéey na ko fi waaye gis diggante Touba ak Tindodi te yoon woowu wax naa ne lu ëpp ci seexi Serigne Touba yi seen i taw fii lañ daan jaar lu ëpp ci njabootu Serigne Touba gi fii lañ fii lañ yaroo fii la jàngee mu mu xam ne dëkk bi wëratutu ak gent mu taxaw temm ci luy tax dëkk du gent ci def fa ndox def fa ay euh, làmp def fa ay. téléphone def fa lépp lu mu laaj def fa ay marché ba def ci aw yoon yoon woo xamante ni ku ne xam na ne jomi boppam moo xëttale diggante dëkk Tindóor yi ak Touba di eh, Touba Maaruusa kon moom la bàyyi mu nuyoo ak yéen rek indil ñu tuuti ci cosaanul dëkk bi ak taxawaay ak yéene yu yi nga xam ne am na ko fii ngi fas ko yéene liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasuul. jërëjëf euh, Serigne Fallou Sylla ginnaaw ba nu santee sunu borom tabaaraka wa taala nuy julli ci yonent bi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di sant xaadimal Moustapha Cheikh Ahmad Bamba di ziare e, xalifa yi e, xulafa yi ngànk torox yi tarix yi sant tarixa yi Sénégal yëpp e, ay yi ak jullit yëpp ak waa Sénégal yëpp waaw di leen ziare bu baax a baax a baax dëkk bi nag ni nga ko waxee dafa bokk ci dëkk yi nga xam ne Serigne Touba moo joxe ndigalal ñu sanc ko mooy fii ak Ndindi ak euh, sëñ euh, dëkku sëñ euh, ki Daaru Karim ak sëñ kii Bousso sëñ Gédé ak ñu noonu nga xam ne sëñ Tuubaa moo ko daan digle te lim ci jublu woon itam moo di booba Tuubaa ab dédd fi nekk ak i ak i rab ak yooyu waaye nag mu def retraite spirituelle sanc ko ginnaaw bi mu sancee Daaru Salaam gi nga xam ne moom la jëkk a sanc bi mu jógee Daaru nag ñoqali ba Touba nga xam ne booba ay rab rek dafi nekk muy àll bu naqare nekk waaye suñu borom jaral ko mu retiré wu foofu di fi jaamu suñu borom tabaraka wa taala digal nag Cheikh Mahamadou Moustapha Cheikh Mahamadou Fadal ak ñi ñoom ñoom ñëpp ne leen ngeen sañci ay ay ay dëkk ci dëkk yi kenn ko ne mu joxoñ la Cheikh Moustapha nag mu jox ko ab jukki ne ko nga jàng ba alladina amanu wa amilu salihat tuuba lahum wa xusnu ab waaw xosnu ma ab googee nag ba mu ca jàngee ba egg si fii ak mu dimb gu nekk fii ba mu tolloo ci xosnul ma ab nag moo tax mu tudd bi fekk dëkk bi tuddoon Tindodi mu tuddee ko xosnul ma ab xosnul ma ab nag mooy meilleur retour mooy mooy retour kon alhamdulilah euh, bi mu sañcee fii euh, di fi bay euh, na ko sëriñ bi waxoon Cheikh Mamadou Fadal sañc ndindi moom itam di fa bay ne ko seen wajur wu tedd ni mu leen ko digle woon ak ña ca des te loolu boo ko seetee ci symbolique booba Touba Serigne Touba li lay wax ne visionnaire la àll la boo xam ne wax dëgg yàlla waaye dafa def lu mel ni ay tata nga xam ne bu doon ca mag ñu jëkk ña ca temps yu yàgg ya nga xam ne Moyen Âge wala yu jëme noonu ñu daan guerre dañuy wut ay tata fege fegoo ko moom nag dafa jël lislaam dëkkoo ko wut dëkk yii def ko muy tatay lislaam nga xam ne dana fekk Touba ba noppi benn bu ne dana mën a gën a gën a gën a ñoqali gën a yaatal lislaam waaw waxuma sax dana fekk Tuubaa waaye day da koy gën a yaatal noonu la ko def mu wëralewaat kooku yeneen dëkk ci encore noonu lañ ko def waaw kon fii di ci loolu la bokk suñu borom def ku ñuy wax sëñ Modou Matar Allé fi la ne woon njabootu Cheikhul Khadim gi ñu ci bare bari fi lañ nekkoon sëñ sëñ Abdou Lahad fi la ne woon sëñ Saliou fi la ne woon sëñ Chouaïbou fi ne woon euh, sëñ fi la nekkoon fi la daan euh, ci euh, tout tànk daan defaree sax jumaam yam daan def ba Cheikh Moustapha nekko ah lii de dana ma sa ñëw waaw dana ma ñëw danaan danaan danaan tout tànk di foyee ni tout tànk di foyee di foyee di def ay jumaa ci ci suuf di ko tabax Cheikh Moustapha ne ko dana ma sa ñëw waaye yaakaar naa ne tey e, sëñ Mamoor mii di taawam bii yaakaar naa ne yaatal na yàkkali na te feeñal na liggéeyam bu baax a baax ci université bii nga xam ne def na ko ba fi ñu toll 2000 étudiants lañ ko jox yoo xam ne mi ngi fii ci Touba université bu mat sëkk boo xam ne bu àndeeg université bi dana am complémentarité boo xam ne alhamdulilah la sëñ Touba doon wax wajaalhu dahban maskana taallumi wa mawdia al fikrati wa tafahumi daf ko béréb boo xam ne euh, béréb bu euh, xam lu ak xam joxe xam-xam xam-xam di fi balle ay xalaat di fi génnee ñu koy jëfe di def application pratique te defe naa ne loola lii moo wane ne mi ngi ci yoon wi kon Tindodi euh, sëñ Modou Moussa fi la nekkoon nekk faak mag ña ñu baax ña nga xam ne bi fi sëñ Touba jógee ñu ci bari ñi ñi fi njëkk a nekkal mooy njaboot sëñ Touba ci boppam fii lañ jàngee xam naa dañ leen woon fañ nekkoon daara yi sëñ Modou Mataraale ñoom ñëpp fi lañ nekkoon sëñ sëñ sëñ Saliou euh, daa daan toog mu ma ci waxtaan lu bare bari kenn ku ne xam na na ma demee ak sama maam ju tedd ja muy sëñ Abdou Lahat moom itam loolu daa nañ ci waxtaan lu bare bari seen nekk fii sëñ Saliou sax wa doom ak ma doon laaj ci ron yi ba am na fii ci jumaa ji nu toog minbar bi doon ma am na garab bu ñuy wax taab la may wax ne ma ndax ma nga fa ba léegi ma ne ko garab ga day gisaguma ko fa bi ma ñëwee laaj mag ñi ñu ma fii la ne woon fii laa def minbar bi waaw muy alhamdulilah ñu barkeeloo ko ci loolu moo tax moom nag moom ma fi jëkk a indil courant moom sëñ Saliou waaw ña ko doon def bañ demee bëgg faa yendu dana leen déedéet dem leen ci Cheikh Aliou bu ngeen fa demee man ngeen ne mel na ne yéen man ngeen yendul bañ ñëwee ñu defal loola ci lan nekk nag ci loola euh, donc Cheikh Moustapha ginaa bi Cheikh euh, sëñ Cheikh Gaynde Fatma nga xam ne moom lañ ma tuddee moom moo ko fi wutu bi sëñ Ahmadou Tindo di nekk fi moom itam moom dëkk bi yor ko euh, moom it def liggéey bu rëy rëy bi fi jógee sëñ Aliou sunu waajur moom itam nekk fi bi fi jógee nag ma ma nekk fi euh, ñu jéem a yàkkali nag damaa woo dëkk bi bañ ñëw ma ne leen lu dul mbalit rek euh, bu ma ko faree dinaa ko fi indi lu dul mbalit waaw loolu laa leen wax yaakaar naa ne tey Lampo sëñ Saliou indil na ma ko fi donte eh, nam waroon a mel ak seeguñ ñu waaye nag euh, li may wax asgor lu jàmbat waaw yoon wi itam maa ko defaral sama bopp rang-rang bi waaw bi mu noppee ak léegi matagul ay bis oto yaa ngi ci jaar gis nga vitesse bi ñu ci jaaree daani ki tortue li ñuy wax mbonaat euh, vitesse u mbonaat lañ fi nit ñi daan jaare ndax yàqu gum yàqu loolu it ñaanuñu ci ndimbal kon kenn ku dul suñu borom waaw ndax nit ki li may wax da ngay def say warugar door a laaj say yelleef bu ko bu ko defoon rek sëñ Mourou Moussa daa am ko ma sa ñëw ne ko euh, Mbàkke man day damaa gis sa coono ndax wutu sëñ Tuubaa daa metti lool coow yi bari na mét métti métti yi bari na dina naqari na ndax bu leen fàtte ne diggante ñaari guerre 39 14 18 39 45 xiif am rafle am ràgg am jafe-jafe yi bari lool mu ne ko dama la cee yërëm mu ne ko boo ma bëggee jàppale tàmbalil jàppale ma ci sa bopp. ci sa bopp yow tàmbalil jàppale ma ci sa bopp. bu loon philosophie la boo xam ne bu ko ñëpp defoon réew mi jag fi saa ñaari fan réew mi jag hmm? loolu la kenn ku ne compter ci sa bopp wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala bañ a jàmbat ndax yàlla mii taw sax du taw fépp waaw alhamdulilah bu ko defee rek buñ ko nun ñëpp noo bokk réew mi te mun mënuñu ko séddoo joxe naa fii lu ëpp 5000 pàkk yoo xam ne dama ko joxe ngir yàlla waaw ëpp na ko dëkke nañ ko te laajuñu ci kenn dërëm te nit ñaa ngi may dégg ñu ngi may dégg dama leen ne itam amul taalibe sama taalibe bañ taalibe jàmbur na nekkub jullit rek waaw boo ñëwee rek naa la jox waaye nag ci kaw nga jëkk nga dëkkee boo dëkkul ma nangu ko jox keneen ku dëkkee waaw ndax du ma nangu aussi itam waaw leneen li ci des waaw bu tey dëgg la daal kër nga bëgg du ñàkk sax ñu ci lu nag moom loolu mu ne su ko contrôler waaw ndax yàlla rek xam lépp waaw waaye loolu moom def naa ko fi def nañ fi itam marché marché boo xam ne social lay doon maal bi sociale la maanaam tey boo naroon joxe mm, ñaari junni dañ koy xaaj ci digg bi pour jàppale ko doomu aadama yi si ñu def waaw maa tabax defal ko dëkk bi waaw maako ko moom maa kii la sax euh, sphère commerciale la waaye dama cee ber loo xam ne maal lañ ko def nga xam ne dama ko def social nga xam ne boo ci naroon a fay prix euh, duubal maanaam ñaari junni junni ba lañ lay fayu maanaam masalan waaw genn wàll ga ngay joxe loolu itam comme danoo am munadama Xaadimu Mustafa li tadaamunul islami organisation Xaadimu Mustafa pour la solidarité islamique boo xam ne dañuy yëngutu ci ma profité ci sant bu baax euh, professeur euh, El Hadji Niang bu baax a baax ku ñu jàppale la ak suñu docteur yi am nañ lu mat fukki docteur ak juróom yoo xam ne dañu ciy jàppale wax dëgg yàlla ñuy dimbali nit ñi ci di faj nit ñi ndax euh, boo dee seet waxuma sax Touba Sénégal waaye Touba bi nit ñi seen loxo jotul seen ginnaaw bu ko defee nag bu fenn fu ne kenn ku ne la nga man ak ña nga àndal bu ngeen ca taxawee kenn ku ne nga la la yàlla wërsëgale ak lu mën a doon nga xajal ca doomu adama yi rek bu tasaaroo lépp day day daal di baax jàmm am waaw loolu lañ ci jublu kon loolu itam noo koy def def nañ fi loolu mm, ndox nag di ko tudd daf may xaw a mm, kii ndax dama cee sonn <laughs> lool dama dama xonetal ku lóbin rey sa maam boo see boo déggee lu ñuul waxuma seen lu ñuul waaye boo déggee lu ñuul boo tul la ngay daw waaw dama cee sonn lool def ci sama énergie def naa ci treize ans ci ndox ci ndox fii fii waxuma waxuma fa ma ne woon ci hydraulique foofa moom fukki at laa fa def ci ndox te bari na kilifa yoo xam ne ba ñuy wut ndox ci man lañ jaar xëy na fàtte am na ci waaw ba foofa waaw bokk naa ci ñi def le programme d'urgence de l'hydraulique sous Abdou Diouf nga xam ne qui sur près de quatre cent et quelques milliards boo ma saan dégg monsieur monsieur Moulin madame Moulin euh, euh, monsieur Forage ñoo ñoo exécuté programme boobu bon fii itam wax dëgg yàlla def naa fi moom itam euh, treize ans yoo xam ne ci ndox mi lu ne laa dégg lu ne lu ne lu ne waaye lépp jàpp naa ne Serigne Touba ku ko lekkal benn dërëm ci li ma foog ak ni mu ragalee yàlla ak ni mu bëggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dërëm eh, sawara lay reesi yaakaar naa ko kon pour ma wax la ni ma ci sonne eh, di sant bu baax nag ñi ma yàlla booleel may seen jëwriñ eh, ma seen sëriñ nag seen jëwriñ laa ndax sëriñ bi benn la muy sëriñ Tuubaa waaw man loolu laa jàpp jëwriñ nag am na waaw dañu jàpp ndax sant yu ñu yor rek ak ngir moom waaye itam ni ñu ko mën a jàppalee rek mooy di ko liggéeyal ci biir ci mbindeef yi ndax euh, li ko indi woon moo doon defar defar doomu aadama yi te defar na ko yeesal lislaam defar doomu aadama yi yéen ñëpp jàmm irham jaameel waraa kenn mënu koo weesu hmm? fu ñaan ñaanal nañ ñëpp ñaanal na ñëpp ka koy ŋàññe ka wax sax ñaanal na ko ka ko jàppoon itam yóbbu ko Gabon yóbbu ko ca xaybatul bahriya ba ca Gabon sax waxuma sax euh, afu bi ci am maanaam pardonné na ko waaye ñaanalaal la ko yaa malikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jaamial wara yaa hadiyan rada kenn desul kon humanité bi yëpp la ñaanal kooku xalaatam kon mën naa yor addina ndax tolérance def tolérance dafa baax ci doomu adama tole yërëm ñëpp yiir ñëpp waaw euh, mu defal ma ko waa Touba ci kanam maa ngi leen di sant ndax sëñ Abibu yëguma tinu ma mu yónnee ma ay làmp sëñ Abibu sëñ Fàllu ci Touba ci kanam wax dëgg yàlla loolu it lu rafet a rafet la déedéet damaa jekki-jekki rek dégg ko mu indi ko loolu ak mbaax la ah may sant sëñ Murtala moom sëñ sëñ sëñ Cheikh Mamadou Fadel di ko sant bu baax moom itam ak sëñ Abdou Karim ndax euh, yoon yi ma doon defar dañ cee participé bu baax ak ñeneen ak waaw yoon yi ma doon defar ndaxam xam ne latérite laay wut damay jënd latérite tàmbale ci corniche ba sur une longueur de sur une distance de cinq kilomètres bu ma defee ba mu egsi ci dëkk bi cinq kilomètres yi ma woo mbooloo mi ñëw maasale ko muy acte un ma woo acte deux ñu maasale waatati defaat noonu defi jal euh, camion bu ne cent cinquante mille la tëngu ñaan lañ koy jëlee defi jal ba mu egsi bu ñëwee ñu maasalewaat ko def nañ ko ñeenteel bi yoon nag lañ door a bàyyi di xaar nag machine bi ñu war a ñëw compacté koo defal ko ba mu jëkk waaw donc initiative la doomu adama yi ñu ñu baax a ngi ci boo tàmbalee te te jublu ci liggéeyal Serigne Touba te muy dëgg ci yow te doomu aadama yi tax nga di ko def sunu borom moo lay jàppale. booba yoon yi déggoo ma ne la doxinu mbonaat mu ne su ko cee dox ci oto boole kook raj rajo ji bi ni ñëw gis nga ko euh, non vitesse dañ ci daw. waaw alhamdulilah kon loolu itam dañ ciy jàppandi ndax yoonu xeeru xonq itam wax dëgg yàlla ñuulal ko moo gën loolu it bis bu amee dana baax ci ñun waaw danoo jàpp ne rek tëb tëb defarandoo fépp munta ñàkk munta munta nekk loolu rek la moo tax du jàmbat dan dañuy lu ñuy def ndimbal la ci fekk loxol borom weewut ci sa mbayit sa wewu tànk loolu la waaye tindoo di gi itam sëñ Modou Moustapha ay tool la def fii muy ndiisoo muy sama tool yi falaa def sama daara ak sama tool fa sama matériel agricole nekk waaw euh, ci xa wàllu euh, jumaa ji bala maa dem ci tool bi sax dama lay wax ne jumaa ji euh, maa ngi ko tabax ci juróom-ñeenti at poto bu njëkk ba maa ko teg maa def fondation bi maa ko natt guddi laa guddi laa daan natt ndax guddi guddi làmp ci ngay ëpp précision waaw ci laa ko natt guddi maa def plan bi maa def poto yi maa tabax maa conduire tabax bi détails yi ci nekk yépp man la keneen bokk ci maa def lépp seede saa ngi nii xale yi ndaw yi ba ba xale lañ ñu wari lu ñuy defar ñu sëkk ko ñu bari gëmuñu ko woon maa ko def lu ci ne maa ko def penture yeeg yooyu parce que def naa art plastique waaw def naa yu bare bari euh, euh, dama daan def dessin def lépp lépp lépp donc euh, ci architecture itam dama ci am ay ay yu baax a baax yoo xam ne lépp maa ko def boo yàggee tukki détails yu rafet yi ngay gis ah, yoo xam ne esthétique lay doon mais danga koy danga koy mën a roof ci tabax yeeg yooyu fi ñu toll maa ngi jël euh, jumaa ji def ko forme der der bi li ma ci jublu mooy der bi sëñ Touba sànni woon ci jumaa ji ca ca ca géej ga ba mu nekkee ca bato ba te waxtu julli jot Euh, ba ci laa inspiré wu sama doxalin nag man ci am picc muy tàgg lay roy picc muy tàgg duma yàkkamti picc buy tàgg day jël benn brindi ñëw indi teg di indi teg di indi teg ba tàgg mi pare ba mu defal ko bu bu tawee alhamdulillah du mën a tooy ah mu mën caa dencu njabootam yàkkamtiwuma ma ko di def ndànk ndax euh, mënewu ma laaj suma cee laaj dara ñu baax nag samay xarit ak i xamee fekk nañ ma fi indil ma ci seen wàll bu baax a baax ndax ku ñuy wax Moustapha Mbeng di doomu Mamadou Mbeng mi ne woon Mbàkke euh, lu fi karo rek moo dem ba du Dubaay architecte la moo dem ba du Dubaay moo ko Ousmane Mbeng ak njabootam seen njaboot euh, ñu jënd conteneur yi yëpp bul fàtte ne jumaa ji 60 mètres la sur 40 waaw loolu lépp ñoo ma ko jox ci karo maanaam boo ci nekkee rek eh, ndimalal suñu borom hmm? lu Serigne Touba wax laa tukthiri shakwa fakun mutajalidan xata tadunu naasu anaka mulhim da ngay da ngay nekk di muñ ko def bañ bañ ñëpp defe na ñàkkoo dara bu boobaa nag fal ilmu ilmu bi nag mën naa nekk xam-xam muy liggéey mën a lu la neex lu mën a doon laa yoxtaa li man yaxsha tawaan bal rabbana abdan sabarun yulhimu boo ci nekkee suñu borom dana la bett ak i xéwal lay bett ak xéwal loolu mooy li ci am euh, ma def der bi muy der ba sëñ bi sànni woon ci géej gi laa ci jublu am na ci sax fu ma def fii ci der bi foo xam ne da ngeen ko gis ci image yi doo seen der bi laalanteeg dara ci architecture bi sur le plan architectural dama dama simuler ne lu lu lu suspendre la ci jaww ji muy ja mu wane ne kon der bi génn na euh, ndox ma génn na bato ba maa ngi ca ndox ma loolu simile naa ko fi simile naa fi itam ñaari turu sunu borom tabaraka wa taala hmm, muy yoo xam ne dana wane ne lépp euh, minal bidaaya ila nihaaya sunu borom rek moo ci nekk du début à la fin sunu borom a fi nekk wane naa ko noonu wane it fa ñaar yooyu fu ñu tase fu ne ñooy séddoo couleur yi muy àdd la nga xam ne sunu borom ca maandu ga noonu la doxee ak séddale ga boo ko defee la koy vérifier benn alifa ci des muy allahu wahidun loolu itam ay xalaat la yuñ ci defaraale donc jumaa ji ay ay ay symbole yu bari eh, mi ngi ci biir ñu dem ndiisoo mooy eh, daara ji nga xam ne moom mooy tool yi nga xam ne tool yi Cheikh Mouhamadou Moustapha mooy sama tool yi foofu eh, boo jaaree ci daral ga jëm dindi boo xoolee mel ne lu jëm daara boo weesoo daral ga boo xoolee ci sa càmmoñ foofu mooy tool ba def naa fa ferme maanaam sama matériel agricole ak yëpp foofu la ne fa laay bayee li may bay nag wax dëgg yàlla yaatu na fa lay bayee foofa Cheikh Moustapha ba mu fay bay fa la bayee woon fukki sàqi fukk fukki sàq fukk euh, sàqum fukk mooy pie pied unité de mesure la moom la ñuy wax fiit waaw foot la ci anglais foot mooy tànk diggante maanaam laxal tànk bu dee pluriel bi mooy fiit moom la ñuy wax pie pied boo ko defee da ngay dangalee benn tànk tegaat pied tegaat pie tegaat pie ba mat fukk ñu wut buum wërale ko def ko ci kaw def ko ci suuf loolu mooy sàqum fukk lu fàq mu rëy la fukki fukk nag la la Cheikh Moussa bind yónnee ko ko tedd ki ci njaareem muy Cheikhul Khadim di waajuram te moom muy taawam mu yónnee ko ko ci njaareem ne ko jox naa la addiya fukki fukk fukki fukk nag euh, sëñ bi daal di ko ne loo jublu ci fukki fukk yi euh, yónnee waat ko ko euh, sëñ Modou Moustapha jël ginnaaw leetal ba boole ko ab junni ci waxtu woowu ne ko maa ngi tuub ci ñàkk gee leeral bu baax ci ci ci li ma ci jublu waaw loolu la tuubee boole ko fukk fukk ya te tool yooyu moo nekk ndiisoo waaw loolu euh, la ndiisoo googee maa ngi fay bay waaw euh, dëkk yëpp nag di leen sant ndax Kellal Baala Baala Fall Baala Njaay euh, Polle Kër Demba dëkk yi wër fii yëpp ak waa Touba ak Majmahun Nurayni bi nga xam ne mooy daayira yi daayira yi ma sëñ Tuubaa booleel mu nekk seen jëwriñ tam nekk ci fukki région yeeg ñeent yëpp ñu ne Tuubaa surtout ñoom ñoo ci danañ ànd ak ñii ma la wax ñu ñëw jàpp ca tool ya di bay waaw loolu euh, loolu am na ci. waaw. Euh, waaw alamul maarifa laa ko tuddee waaw l'univers du savoir loolu aussi institut la boo xam ne ba ma ko def naa ko tàmbali nañ ko Euh, maa ngi sant bu baax Arona Coumba Ndoffène Diouf waaw moom jàpp na ci te inauguration bi moom la moo ko inauguré woon euh, moom itam euh, ñu ngi fii ci bunt bi lu yaatu la bëgg nañ faa def majalis ndax ñi jàng majalis amuñu programme défini dañuy jékki-jékki rek jàng bu mu yàgg rek ñu arrêté seen jàng waaw fu seen xam-xam toll rek baax na loolu itam daamatoon a organiser filière bu ñu organiser wul la majalis bi majalis mooy nga toog ñu lay jàngal nii xam nga loolu te euh, defi ñu ci benn diplôme doo jàll euh, dangay ngay jékki-jékki jàll jàng bu mu yàgg rek nga yem fa bon bu ko defee boobaa danañ leen mën a wutal tremplin boo xam ne danañ mën a jàll feneen moo xam dañuy ñaan bourse feneen ci ndax bari nañu ay xamee ci bitim réew bourse bu ñu jàng ji feneen wala leneen wala ñu jéem a seet fu ñuy mën a jaar euh, danañ fa def itam ay langue français anglais allemand ak yu mel noonu ndax jamono ji boo déggul langue doo mën a wax kenn koo dégg làngam rek am nga loo gañe ci moom danga nga gañe sympathie waaw lu ci bare bari mën a wax ak moom te njàngaleem sëñ Tuubaa itam sëñ Tuubaa ñëpp duñu wolof voilà dañoo war a jàng làng yi ndax li sëñ bi def dafa rëy rëy goo xam ne Sénégal gé ko gépp ko waroon a tiitaroo ndax yaakaar naa ne bu ko tubaab bi amoon ñoom danañ ko danañ ko exploité mën nañ koo jaay sur tous les plans sur le plan spirituel sur le plan économique def na ay preuve am kenn ku ne gis na li muy indi ci Touba donte am na nay détracteurs yu ñu doon wax naan day yàq mais loola euh, chercheurs yi ak ñi doon def euh, gëstu ci wàllu googu euh, wan nañ ne loola lu safaanoog la la ñooñu doon wax la ndax ay milliards ci génn yoo xam ne plus-value yi muy créer rek ku képp ku am sa marchandise mu lambo boo ñëwee Touba mu jar ci màggal gi donc apport économique boobu muy indi ci Sénégal amul benn événement bu koy indi ci Sénégal loolu rek waroon naa jar Euh, ak dafa mel ni nit ku ñuul dafa am lu ko topp malheureusement et ça se comprend euh, impérialism fu mu jaar esclavage bu yàgg nga Zanzibar arab yi yóbbu def ay esclavage yóbbu bon euh, impérialisme bi ñëw colonialisme bi ñëw ñu coloniser leen njaayum jaam esclavage ñëw ñooñu yëpp ku subir ces affres là jafe-jafe yooyu sa jikko fokk mu déteindre ci fokk mu feeñ ci ba tax na am na xeeti euh, yeneen jikko yu doy waar yu nu topp yoo xam ne danoo waroon a fonk suñ bopp fonk suñ bopp waaw ndax Seexul Xadim dafa wax ne du càggi ni kawar gu gàtt ngay am wala der bu ñuul tax na sam xel gàtt kooku ba muy plaider euh, affaire li ñuy wax nag négritude ñii prôné négritude di dooguñu woon ju dooguñu woon waaw kooku kon wax dëgg yàlla euh, bien national la boo xam ne c'est un don de Dieu euh, yàlla dañ cee waroon na tiitaroo ku mel ne moom ku mel ne maam El Hadj Malick ñu def noonu keneen noonu ñu ñu ñu tiitaroo suñu mag ñooñu xam ne trésor lañ am Sénégal boo xam ne fu ñu nekk indi nañ fa jàmm wax dëgg yàlla euh, ak yooyu xool ma ku mel ne Baye Niass li mu def personnellement def effort génn réew mi indi indi ci Sénégal ñooñu sëñ bi fii nga toog nii sunu maam ju tedd ja maa koy rendre hommage mooy euh, maam bu Kunta mi nelaw euh, di suñu mbokk ci ñeenti façon waaw bëggoon lool doon sunu xarit di suñu maam ñëw na ba fii bi may tàmbali fii waaw mu ñaan fi defal ma ngan fii ànd ak waa Njaasaan gépp defal ma ngan fii fii fii fii nga toog nii ñëw na fii fi la jëkk a wàcc ñaan fi door a dem ci kër ga ba muy dem ma yóbbu ko ci sëñ Sidi maxtar kër na ba ñu saafonte ñoom ñaar ñu doo ko tàggoo mu dem waaw lu masaan def lu ne doonuñ ci boole waaw yal na yàlla yokk leeram waaw wan ko ne ko matériel jumaa ji toll nii ji nga bëgg matériel lourd bi fokk mu am chemin de fer maanaam raay bi mm-hmm. bon xamoon na ne tubaab bi moom loolu profité pour pour raay bi pare mu exploité mm-hmm. moo doon exploité terrain mm-hmm. mais moom jaaraloon na ko ñoroon na ko ngir ndigal li ko Sëriñ Tuubaa digaloon moom moo mën a tàmbali jumaay Tuubaa gis ba mu tàmbali kon euh, ca ca ca loolu euh, loo ci gis rek lu mën a dafa am wax ne mun maa dajeeg nit mu mën a doon te amul ci moom kenn te yëg nañ ko. Mm-hmm. koo mën a dajeeg dana dajeeg ci moom kenn rawatina ko baax na kon ci loolu dañoo way ci jumaa bi ci laaj boobu ñu ko defal loolu lu toll ne xam ne monsieur Sow dégg mukk particulier maanaam nit fekk ñu defal loolu. Mm-hmm. laaj ay entreprise wala état wala. waaye nit kuy dem ñu defal loolu waaye ñu te topp suñu borom ak jumaa ak. salaan jaral ko loolu moo bi nu bi dëkk bi ñàkkeewu yoon te sëñ Tuubaa ko ngeen di dem di liggéey di di jaamu yàlla di di siyaare si Tuubaa loolu xawoon na ma xalaat ca loola mu defoon ca laaj moo ma jox xalaat nit ñi jàppale ma ci ci diir bu néew ñu ànd ku xaaral ñu mu daal di ànd waaw kon nag yokk ci yeneen yeneen ak njabootam kon euh, Tindodi daal mi ngi nii sorewul ak Touba te ci euh, li fi sëñ bi bàyyi woon ci la ñuy jéem a euh, dox incha allah daara ji daal fi la ne woon ci waa kër sëñ Touba yi ñoom ñëpp fi lañ jaar hmm? nekk na ci tata yi nga xam ne day aar Touba ci wàllu diine sur le plan spirituel ah, ak fu mel ne Ndindi moom itam ak fu mel ne Guédé ak Daaru Karim kon yaakaar naa ne lépp lu fi wàll euh, waroon a am rek bu fekkente ne àddina dox na ba loolu amul ci ay meloo ki doxalin ak ki neneen yaakaar naa ne dana ma ñëw waaw ndax borom sunu borom am na lu ëpp loolu te ñi fi bàyyi fàggul na leen euh, lu ne ci àddina lu yiw rek fàggul na leen ko kon nag ci foofu rek lan wéeru ba tax ne lépp lu nuy bëgg a def rek dañ ci jiital suñu bopp defal ko suñu bopp ba dara fekk nu ca loolu daal lan fas yéene kenn musa dégg communiqué bu ma def wala dara waaye sunu borom dimbali nañu ba suñu xamee yaatu nañu bu baax a baax te du ñu kenn dara lu ñëw ci ñun nag ñu jéem la ko defal ci eh, sunnas Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jëm la cee jaarale ndax lu loolu lu sunu waajur sëñ Aliou Mbàkke foofu lañu jaarale sëñ Amadou Mbàkke Tindo di fa lañu jaarale loolu Cheikh Mouhamadou Moustapha moo leen jaarale foofa mu jëlee ko ci Serigne Touba. kon na ngi sant njabootu suñ Tuubaa gépp bàyyi wuñ kenn di la sant bu baax yow itam euh, ndax sa liggéey sëñ Tuubaa jaral na ne lu ne nga ciy dégg waaye jaral na la waaw waaye kenn du laal sëñ bi de yow moom kenn du laal sëñ bi di sant bu baax gànna mesere itam moom itam ku baax la waaw di sant Mor Talla Fall moom itam wax dëgg yàlla yéen daal yéen a ngi liggéeyal sëñ Tuubaa bu baax waaw di sant nag sëñ Moussa Walla Karam man waxtu fu ma toog danaa ko sant waaw ndax nit ku baax la waaw moom itam mu ngi liggéey ci yoon wi liggéey boo xam ne xëy na feeñul wala boog ñu bari xamuñu ko waaye li muy liggéey néew na ku koy liggéey ci lu baax kon nag alhamdulilah di sant itam sëñ Bass Poroxaan bu baax di la ko seereel moom itam euh, di sant sëñ dellu sant sëñ Mourtalaam Cheikh Mamadou Fadal ak sëñ Mamour Sam sëñ Mourtala moo jékki-jékki rek yónnee fi ne lépp lu ñuy liggéey seex mu Moustapha dama cee war a bokk waaw alhamdulilah loolu ak yëg la bëgg mbokk la maanaam ñu ngi koy ñaanal yàlla guddalu fanam nit ku baax la moom itam euh, euh, di di di sant ñëpp daal bàyyiwuñu kenn euh, lii itam lu am solo la li ngeen def maa ngi sant Aliou Thioune sunu xarit la bu baax a baax a baax liggéeyal na ci yoon wi liggéey bu am solo boo xam ne ñëpp a ci teg seen bët waaw kon nag yàlla ko yàlla fay loolu maa ngi fàttaliku bu ma fekkee ci mbaar ma ci wetu ko sëñ Saliou mu génnee al ci poosam addiya yu bari jox ma ne ma joxal sëñ bi booba dafa xat ma wax kooko sëñ bi sant ko tubaarkàlla loolu yàgg naa liggéeyal yoon wi kon ñoo ngi koy sant bu baax di sant ñëpp di sant suñu kilifa sëñ Ahmadou Maxtaar moom itam bu baax di ñaan yàlla guddalu fanam bu baax a baax ba naal yi mu naalal Cheikh Moustapha mu eggale ko euh, bi jaaxi Seydou Loujot ñoo ngi leen di sant yéen ñëpp di ci jiital ku ma ci sant rek jaar naa ko ci yow ak Mor Talla ngeen santal ma waa presse bi yëpp ndax damaa bokk ci yéen moo tax kon alhamdulilah presse bi maa ngi leen di ñaanal suñu borom gën leen a yaatal gën leen a sàmm gën leen a barkeel te lépp lu ñu def ñu bàyyi ci xel ne Sénégal réew la moo xam ne dañ ko war a sàmm te noo ko bokk te mën na koo séddoo fu fi waay nekk muy murit di tiyaan di xaadir di naar di law bi di pël ak ku mën a doon nañ xam ne Sénégal benn la lépp benn la jàmm rek a fi xew kon yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla defal ñëpp jàmm ci daraja yi e, Serigne Touba bi jaahi Seydou Wujud kon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf e, Serigne Cheikh moom Serigne Aliou Mbacke moom Serigne Mouhamadul Moustapha moom Serigne Touba Xaadimu Rasul. ci euh, labire gi nga xam ne ñëwee na kook ñun ci dëkk bu tedd bi nga xam ne moo di Husnul Maab di euh, tundoo di di dëkkub Cheikh Mahamadul Moustapha al Karim ngeen jot a dégg euh, li ko fi ay waajuram bàyyee woon waaye moom itam ak fi mu tegoon tànkam ak yéene ju sell ji nga xam ne am na ko jëmee ko ci population bi nga xam ne ñoo nekk ci Husnul Maab di ay dëkkandoom di ay bokki taalibe mu lëtt si fi lu ëpp juróomi junniy kër seddale ko jullit yëpp ñu dëkkandoo ko lool li nga ciy jànge mooy kon ndakate population bu rëy mu ngi ci biir di ak ñi nga xamante ne bii fi la leen natt bi fekkoon ak li nga xam ne ñoo ngi ciy dollikuwaat muy dëkk boo xamante ne bii kon lépp lu dëkk bu mag war a am rek xusnul ma aab di di war na koo am ndax boo xoolee bi ngay ñëwul yaa ngi romb kaar yi nga xam ne ñuy sëf nit ñi di ko ñëw yaa ngi romb sareet yu ñëw waaye yaa yaa ngi romb itam kalandoo yi ñuy sëf di jëm si fii mooy teg tegtale ne dëkk la boo xam ne kon dëkk bu ubbeeku la waaye itam dëkk la it boo xam ne bu am population la kon yaakaar naa ne lépp loo xam ne jaadu na ci ab dëkk rek Serigne Cheikh Aliou teg na tànkam teg am xelam ci loolu mu leen wax ne lu dut mbalit bu ma ko faree fii laa ko jëme si feeñ na ci marché bi mu leen defal mu ñu war ko toll ci war ko intégré fal na ci jàngukaay bi mu leen defal waaye toll na itam defal leen ay làmp defal leen am ndox defal leen itam aw yoon yaakaar naa ne eh, njiitul eh, diine njiitul dëkk itam foofu rek la mën a jaar kon ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm di leen joxaat rendez-vous ci yeneen jotaay seen mbokkum taalibe la Fallou Galass Syll ci seen émission at Murid di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal boppam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillah.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 سفي بقاء أبيهم لي فيك يا الله يا من له الأمر يا ملاك